ndeysaan mbokk yi ba tey ñu ngi fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies terrain Indochine waaye open presse bi nga xamante ni tey góor a sax woote na ko fii di doomu Parcelles doomu Cambérène doomu jàmbaar Wrestling Academy xale boo xamante ni dama naan lamb dafa am ci moom yaakaar mu yàgg a wane boppam yàgg fee daan ay daanaan waaye tey waaye tey ndeysaan lamb yeewooti ci moom. mu war a jàkkaarloo xale boo xamante ni démb ba mu génnee géejoo waa yëpp a génn ah, ñu gis guy gi génn Balla gay 2 génn ndeysaan képp kii doomu géejoo waaye démb nga wuy ñu jàppale ki nga xamante ni moo di fii sa waaye tey bu ñu ñëwee parcelle xool li nga xamante ni ndeysaan moom la góor a soog génnee ah, ñu xool ndaanaan loolu jiitu seen kanam di seen mag di Papa saw la grand champion ndeysaan Papa Sow gi noonu le grand champion boo xoolee tey ni nga xamante ni tey noonu la ñëwee ci bés bi nga xool ni mu ànd ak rakkam àndee ko ki nga xamante ni moo di ay rakkam Goro Sock Franc Garga 2 ndeysaan xale yaa ngi noonu Talfa waaye bugaa ngi noonu suma xarit doomu Gàmbi ji mi ngi noonu tey jóge Gàmbi teew ci bési Blindé doomu parcelles yi xale yëpp a génn wuy si seen doom gunge seen xarit fas yéene jëm ak moom ca la 14 fële ca arène mon frère waaw waaw nga xool xale yi ni ñu génne nañu ko dooree ndeysaan Goro Sock a ngi noonu ci géew bi ca la 14 jam production waaye sama xarit daa ñëw am bés ci lamb jooju ndeysaan ndeysaan waaye Papa Sow xoolee xam ne mi ngi ci état mi ngi waaj lambam ak ki nga xamante ne moo di Siteu le grand promoteur taxawal ko mooy ki nga xamante ne moo di jàmba production waaye góor a ngi noonu di def ay déplacement ndaysaan cee jooju lamb ndaysaan Papa Sow a ngi noonu borom jàmbaar Wrestling Academy xale bi nga xamante ne bi muy bëri écréam ñu bëri dañ naan kii fu mu jëm xanaa dafa dof waaye révélé na ay champion am ay produits yoo xamante ne dinañ tëj làmb ku ci mel ni franc ku ci mel ni góor sek sëg mi woote tey jii ah xale yaa ngi noonu ña ngay Garga 2 ngi noonu doomu Fadia doomu Parcelles xale bi nga xamante ne lambam ak Mama Lamine ba tey nit ñaa jooy ndax ñàkk am ki nga xamante ne amu ko ndeysaan doomu Fadia xool ko ma ngay sànni gauche droite xale yaa ngi noonu waaye Franc Ndiago ndeysaan Ndiago or bi mi ngi nee taxaw boo ko gisee sama xel day dem ca keroog ba mu jàkkaarloo ak Sokh ndeysaan xale yaa ngi noonu lamba ngi noonu xale wuy si nañ ko Tapha Mbeur doomu parcelles yi xale ñëpp a wër ndeysaan ndeysaan ngi noonu ma ngay def ay mbir cey làmb ndeysaan waaye tey mbëri dama leen di jël benn par benn ku ci ne ma waxal la sa mbaax wax li nga xamante ne moom nga def ci lamb la grand champion Mamady Ndiaye Robert bi tëj na lamb bi simple xale bi tëj na lamb yi dóor di ndaanaan loo xamante ne problème adversaire ko am ndax mën a bërëm ndax doon ndaanaanam ndax doon champion ma nga noonu Mamady Ndiaye xale séeréer baa ngi noonu loolu séeréer naan kon nag ngaa tig tig taxul boo déggee dara xabal li dara tax Mamady ngay dem doomu parcelles yi tey dañoo booloo. ànd doon benn parce que nekk ngeen seen doom ci bés boobu nga xamante ne war na koy jongante mu di Garga 2 ayca Garga ngi noonu suma xarit lamba ngoog cey lamb ji ndaysaan Tapha Mbeur a ngi noonu moom it jël na bés moom it am na bés ci ki nga xamante ni tey moo di Gamou Gueye Tapha Mbeur lamb janq la làmb xale la lamb la joo xamante ne Tapha dafee wane wane boppam wan sénégalais man maay kan wan sénégalais ah cee lamb ja ndeysaan